waaw aca bokku yéena ko gis noonu mbokki Mbour mbokki Sénégal ah, li nga xamante moo am tey fii ci diwaanu Mbour benn ñag bi nga xamante dafa ñëw am agressé ko ba pare tiire ko bal ray ko génn ba pare ray fii nga xamante ci buntu police bi police yi di dóor ay lacrymogène ñoom tamit ñu affronté na ñoom par la force nañu génnal ki nga xamante moo def ñaawteef gi ni mel pour jàmmaar la ak moom loolu daal moo jot a xew fi nga xamante tey fii ci diwaanu Mbour